gis nga nag biraayam lu ëpp tuuru léegi ni nga nekk dafa ëpp de nëbbatu guddi nëbbatu bëccëg yow danga may nëbbatu di nëbbatu maa joor joor mi nga xamante da koy protéger si kër gi sax da koy nëbbatu eh, eh, eh, waxi joor lan moo ko indi ci waxtaan wi wala nga bëgg ba takk rajo yi wax nit ni ngay nëbbu joor loolu nga bëgg J'ai une mauvaise nouvelle. Une très mauvaise nouvelle même. Nardiop est libre comment ça Nardiop est libre tonton Libasse wax ma leneen waaye loolu daa mën a elle est sortie de prison elle a obtenu une liberté provisoire. loolu kañ la. j'ai une amie gardienne du prison c'est elle qui m'a confirmé ça. est-ce que xam nga ne sama jàmm jeex c'est la fille de Maïmouna Faye et de Brahim Diaye. ay at a ngi nii kër Rama Diop mënul am bon kenn waral ko ko dul sa yaay ak Birahim Ndiaye.